ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne biiri xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi te nag dañuy def benn jàngat boo xamante nii dafa di ab seetlu gannaaw ba nguur gi fi nekk defee bàyyi bàyyiwuñ ci woon sax xel mais ak benn recul dañoo seetlu que ni ndeke depuis indépendance en 1960 depuis juróom-benn fukki at même doomi aadama yi même politiciens yi même jëmm yi ñoo woy ba tey di yor Sénégal dugal ko nag ci benn guuta goo xamante nii la ko ciy génne du ñii ay socialiste lañ ñii ay libéraux la ñuy woowee seen bopp donte sax ñoom ñoo xaw a tane ci benn wet ci seen nguur mais depuis jamonoy maam ñooñu ñoo fi nekk ba tey te néew na ci ay sénégalais yu mën a joxuñ baaraam ne lii politiciens yi nga xamante ni ñoom dañu jël politique def ko métier ñoo def lii ci biir réew mi néew na ci ñoom maanaam daf ci am ay doomi aadama yoo xamante nii mboolem poste yu ñu mës a occupé tàmbalee ko ci nguuru Senghor waxuñu taw Abdou Diouf mais depuis jamonoy Senghor wàcc ci Diouf ñëw ci Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall néew na ci ñoom ñu jariñ Sénégal ci yenn fànn yi maanaam dañuy dundee alalu réew mi mais mosuñ dox ci liy defar réew mi dañuy ànd ak nguur soit ñu dàq leen wala ñu teggi sa ndombal tànk ñu mer jëm ci opposition bi keneen daal di faluwaat ñu ànd ak moom ñu daal di leen di sédd wala ñu nekk ci nguur ba nguur googu daanu ulliku ñu am dignité ak ngor opposé wu ba keroog ñu jotaat ci pouvoir wala ñu dem wuti métier dañuy transhumé dem ànd ak kañ doon yàq lu mel ni xeme xeetu politiciens yi nag ñoo téye Sénégal en otage depuis les indépendances ndax dañoo jël politique def ko liggéey te li tax mbir yi frappé ñu mooy dañ ne Sénégal c'est un pays jeune maanaam réew la boo xamante nii macha allah dañoo bëri ay ndaw mais malheureusement suñu réew ni mu bindoo sur le plan démographique reflété ci bànqaas yi nga xamante nii ñooy doxal dëkk bi. tey ku dëkkul Sénégal boo xoolee ministères yi jël assemblée nationale jël direction yi ak yeneen institution danga naan Sénégal amul ay jeunes yu xarañ. néew na nga gis fay ndaw am na mais benn benn lay doon te moonte bari na ci réew mi ay jeunes yu qualifié am na ñoo xam ni def nañ seen preuve ci biir réew mi moo xam ci secteur bu mënti doon ñeneen ñoo ngi jëriñ ñeneen réew te seen expertise mënoon bokk ci liy développé Sénégal maanaam bépp doomi sénégalais bu nekk bitim réew di fa jëriñ Sénégal daf laa war a jëli nga ñëw ñu teg la sa place nga bokk ci ñuy doxal réew mi. fan yii rek dañoo découvrir benn jeune sénégalais boo xamante nii mi ngi États-Unis bëggoon ñibbi si Sénégal ngir jàppale réew réewam ci wàllum cybercriminalité maanaam naka la ñuy protéger suñuy données ak yeesal suñu état civil ba mu dëppoog jamono mais bi mu ñëwee Sénégal kenn faalewu ko Macky Sall dafa dem signé ak Union européenne benn coopération boo xamante nii ñoom waa Europe ñooy gérer suñuy données personnelles ba sénégalais bu fa nekk amoo këyit ñu mën laa identifier à travers ay empreintes digitales ak yeneen i xar la ci nu mu gën a yombee. lii benn vidéo spéciale la boo xamante nii ñoo ngi ciy liggéey ñun jaay nañ ñu bu yàgg-yàgg te yëguñ li xew te li lépp li ñu ko yóbbee mooy élite politique boo xamante nii seen bopp lañ fi nekkal nee naa leen depuis indépendance même personne yi même bopp yi ñooy dafa ko dindi ñooy nosu ko nocci te lépp ci duufal seen poche faalewuñu réew mi ki ñu koy tàmbalee nag mooy ki occupé benn ci institution yi gën a ci biir réew mi muy assemblée nationale di Moustapha Niass tey mi ngi am 81 ans juróom-ñetti fukki at ak benn yàlla na yàlla yokki fanam te dolli ko wér moom Moustapha Niass est xam ngeen ni depuis 1979 jamonoy Senghor mi ngi occupé ay ndomba tànk yu am solo ci biir réew mi. ci année boobu noonu la ko Léopold Sédar Senghor def ministre bi ñu dénk wàllum urbanisme wàllum habitat ak environnement ci même année boobu itam lañ ko nommé ministre bi ñu dénk wàllum bitim réew le septembre. nekkoon na itam premier ministre en dix ans après ba tey ci nguur Abdou Diouf mu nekkaat ministre bi ñu dénk wàllu bitim réew fa la nekk la ko tàmbali 1993 jàpp 1998 avant ñu koy nommé représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Est nguuru Abdou Diouf jeex en 2000 Abdoulaye Wade falu Moustapha Niass nekk premier ministre am en avril 2000 jàpp mars 2001 Macky Sall falu en 2012 mu nekk président assemblée nationale ba suñu doon yàlla tey jii kon ngeen gis ni mboolem président yi fi mës a jaar yépp depuis indépendance Moustapha ñas mos na ci sa nguur te tey néew na ci ay sénégalais yu la mën a wax li mu jëriñ Sénégal waxuñu rek réew mi loolu dafa rëy mais boo demee ba Kër Madiabel fa mu bàyyeekoo boo fa demee buñ la nee fii la Moustapha Niass dëkk doo ko gëm dooy infrastructure yu baax du dëkkin bu mu caayit du lenn lu waa population bi mën a ndamoo ne lii suñu yi dëkk moo ko fi def ñu mel nii ñoo yor Sénégal depuis 1960. ñu des ba tey ci socialiste yi ak Aminata Mbengue Ndiaye moom itam depuis taw Abdou Diouf loxoom génnul ci yorinu Sénégal buñ ci génnee nguuru maître Wade ndax en 1994 jàpp l'an 2000 moo jiite ministère de la femme de l'enfant et de la famille en 2012 bi Macky Sall faloo ba ñuy séddoo poste yi ñu jox ko ministère bi ñu dénk wàllum élevage mu jóge fa dem ministère de la pêche et de l'économie en novembre 2019 ñu teg ko ci bopp Haut Conseil des collectivités territoriales te ki jiite woon di Ousmane Tanor Dieng beneen naataangoom socialiste di Aïssata Tall Sall moom waaroon nañ ko fi mos na ci nguuru Abdou Diouf moom itam entre 1998 jàpp 2000 en tant que ministre bi ñu dénk wàllu communication mu nekk itam porte-parole du gouvernement Macky Sall daal di falu gannaaw opposé gu métti gu mu amaloon jëmale ko ci moom moom Aïssata Tall Sall bokkoon ci doomi aadama yi doon xeex transhumance. Ce sont les mêmes qui font transhumance. Alors, cohérence pour cohérence, ils doivent commencer à être cohérents. Et moi, ma façon de penser, c'est que la transhumance, il nous appartient, nous, politiques, de la combattre. De par des principes, par notre posture, par notre attitude et par nos idées. On aura beau légiférer. Si le moral des politiques, c'est de transhumer, eh bien, on vaincra difficilement la transhumance. moom moo mujj weddi lam daan défendre daal di dem jël ci Sedo Sénégal bët bërki démb lañ ko nommé ministre bi nga xamante nii mooy caytu lépp lu jëm ci wàllu bitim réew nga jël Aminata Tall moom dañ ko jëlale moom mi nga xam ni Macky Sall daf ko signé benn décret boo xamante nii donte nekkatul ci bopp conseil économique social et environnemental mais teewul Macky Sall signal na ko benn décret di ko jox salaire u 4 millions 500 mille par mois ci xaalisu Sénégal benn véhicule de fonction ak chauffeur 500 litres carburant par mois ak benn élément bu koy garder te ndaw si xëyulul Sénégal gontu luñu nekkoon na fi ministre ci nguur Abdoulaye Wade ba ko maître Wade dàqee ci la mer nekk na fi itam meeru Diourbel te waa Bawol daawuñu ko sax teg bët maanaam moom waxuma la Sénégal muy dëkk ba mu bàyyeekoo muy Diourbel mosu leen amal benn njariñ léegi ñu mel nii ngay gis ñu ne yeeyaay dañoo dugg ci nguur ngir nee na génnee Sénégal ci situation yi mu nekk alors que ñoom ñooy problème Sénégal ñii ñoo raw coronavirus. nga jël itam ki waral cooli fan yëpp di ndaamal kajoor Idrissa Seck ñu bari rawatina nouvelle génération bi dañoo jàpp ni kii ci maître Abdoulaye Wade ak nguuru Macky sàll la occupé yenn post yi mais déedéet demeewul noonu. Idi ci jamonoy Abdou Diouf en 1995 nekkoon na fi ministre bi ñu dénk wàllum commerce wàllum artisanat ak lépp lu jëm ci wàllum industrialisation gannaaw ba Abdoulaye Wade duggee ci nguuru Abdou Diouf ngir former gouvernement ñoo nationale. Abdoulaye Wade falu en 2000 def ko ministre d'État directeur de cabinet du président de la République mu jóge fa en nekk premier ministre bu 2004 ci nguuru Macky Sall comme niñ ko xamee ñun ñëpp mu daal di transhumé nekk président du conseil économique social et environnemental bërki démb gannaaw ba mu waxee àdduna gépp ni moom décret dootu ko fal mu daal di koy weddi na musul wax loolu gars yi daal koy vaar. bi may wax décret dootuma fal waxuma décret dootuma fal puisque loolu ci dogalu yàlla la ne dama ni fasatuma yéene décret di ma fal. li ma jàngate ci sama diggante ak Ablaye Wade ak fi ma jaar ak moom moo tax li ma dese ci sama dunduk politique dootuma ci yor cër boo xam ni ci décret lay toxoo lu ma ci yor rek. lu ma nit ñi di fal lay doon dootuma ci yor cër boo xam ni ci décret lay toxoo dootuma ci yor cër boo xam ni ci décret lay toxoo mais comme ni ngeen ko xamee rek réew mi fi mu nii la ñuy séddale ku ne di jël sa wàll te malheureusement c'est les mêmes personnes maanaam benn cercle homme et femme politique la yoo xamante nii représenté wuñu zéro virgule zéro cinq pour cent ci population bi ñooñu ñoo jël Sénégal di ko séddoo comme ku tiim seen gato ak seen i njaboot nee naa leen la ko tàmbali ci nguuru Senghor ba ci Macky Sall c'est les mêmes personnes mais ci Macky Sall la gën a graawee ndax moom dafa jël réew mi daf ko ay pàcc. maanaam formation politique bu ci nekk mu am luñ la sédd xooluñ compétence xooluñu valeur xooluñ kii lan la mën a apporter Sénégal bu gën seetlu composition gouvernement bi poste yi gën a stratégique muy armée justice ak ministère bi ñu dénk biir réew mi ñi bokk ci moom sës ci moom Macky Sall lañ ko jox. assemblée AFP daal di ko jiite ak Moustapha Niass t mu jox ko waa parti socialist ñoom ñoo ko moom ku jug sa morom toog conseil économique social et environnemental mu daal di ko jox waa réew mi te bu ngeen gisee coggalu Idrissa Seck bi ñuy tëb di dal ku ci nekk yaa ngi xaar Idi nommé la ci benn poste biir conseil économique social et environnemental dara gëmuñu ko Sénégal ñoru leen amul dara lu ñu jomb. léegi ñun li ñuy laaj mooy ani wàllu askan wi ñun loolu la ñuy laaj. mais bu ci yemoon mu neex waaye PDS bi nga xamante ni sénégalais yi ñoo leen sanctionné woon en 2012 ne leen mun ngeen ñoo abal ñu xool leneen ñooñu la Macky Sall jëliwaat tegaat leen ci ay tànk yi gën a solo ci biir réew mi. Awa Ndiaye mu yóbbu ko CDP Moussa Sy ñu yóbbu ko port Oumar Sarr barki démb lañ ko def ministre des mines et de la géologie Modou Diagne Fada ñu nommé ko directeur général Sonacos Souleymane na Ndiaye ñu def ko PCA Air Sénégal. des na ñeneen ñu bokkoon ci parti démocratique sénégalais yoo xamante nii transhumé nañ actuellement mais nomination la ñuy xaar maanaam régime bi fi nekkoon 1960 ñëw 80 jàpp l'an 2000 ci première alternance jëm 2007 2012 jëmm yooyu noonu ñoo fi nekk ba tey amul benn changement te ñooñu soxlawul nga nekk expert pour xam ni dañoo échoué seen échec moo tax ba tey ndawu Sénégal amatul yaakaar ci biir réewam ba day dem di jëli gaal ngir mën a suturlu feneen loolu rek doy na misaal pour wane échec suñu way politique yi depuis ba ñu amee ba léegi. léegi nag lu koy faj yaakaar naa ni sénégalais yu bari foofu la ñuy xaar liñ ci mën a xam mooy benn côté war nañ dolli sant yàlla. li tax ñu sant yàlla mooy Macky Sall buy jóge ci boppi réew mi dina am benn classe politique yoo xamante nii da leen di yóbbaale te ñi ñu leen limal fii yëpp xam nañ ni après Macky Sall amatuñu poids politique. ñemeetuñu sax taxawaat di wax ak sénégalais yi ndax gëmatuñu leen moo tax bu amee benn côté bu ñu war a sante Macky Sall bu baax a baax mooy dimbale nañu ba weer yenn politique yi nga xamante nii du wax dëgg ay workat lañ xaalis lañu gëm mosuñoo bëgg Sénégal ñooñu ñëpp bu ngeen xoolee ci nguuru Macky Sall dañu leen weer jaxaran ñëpp xam ne ñii ay escroc lañ imagine leen ku ci mel ni Idrissa Seck bu nekkoon suñu président ñun fan lañ jëm waa ji mooy wax daaw ñëw ren weddi lépp lu mu doon wax ànd ceeg benn dal goo xamante nii yow da ngay sax waaru da nga naan kii nan la mën a xoolee njabootam kii bu nekkoon président mooy sàcc suñuy milliards ba pare taxaw wàcc alxuraan di ko wutal lay mais Macky Sall dimbali nañu ba wan Sénégalais yépp ni waa yi dafay wàccu di lekkaat xaalis kese la gëm gëmul dara benn faux type la. kon li ñu war a sante yàlla mooy fekk 2024 ñun sénégalais yi suñu destin suñu loxo lay nekk ñu daal di defar suñu Sénégal bu ñu leen bàyyi ak réew mi dañuy am leen neex. ñoom loolu lañ bëgg fi mu ne nii moo tax ñu ñuy ñaawal bés bu yàlla sàkk ndax ñaawal mënul weesu ay sénégalais di dee ci géej gi nga taal seen avion dem ba France di signé ay accord de pêche ñaawal sénégale yi mënul weesu nga organiser sa benn cérémonie wax fa loo xamante ni dara nekku ci dëgg boole koo ki ree ak a xaaxataay kon ñii buñ leen bàyyi réew mi bu kenn gàddaay di dem li ñu dëgmal na ko sénégalais yépp ànd xeex ngir ñii abal ñu ñu mën a defaraat suñu réew. samedi 21 bi incha allah am na marché bu ñu amal la ko tàmbalee place de la nation jëm rond-point RTS à 15h ngir suñu doom yi nga xamante nii dañu dee ci géej gi di leen ñaanal suñu borom yërëm leen na ko ñëpp teewee ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngeen jëf.